Uh, marhaban bikum njiiti réew mi Macky Sall xamal na lancement ñaareelu pàcc saxaar gu gaaw gay fararari teer fa si yéene ñu yokk ko diggante jam ñaajo teere ji aéroport ba AIBD si du quotidien moo ñu ko xamal fileeg fukki weer ak benn ci la liggéey bay noppi deux cent sept milliards lañ ci nar a dugal ci fukki kilomètres ak juróom-ñeent enquête yéene kaay ne Macky fa bëgg balaa 2024 ñaareelu pàcc teer bi noppi ba tax yéene kaay bi mel ni ku naan ne Macky yemul fa de fa bëgg a jàllale teer bi bi ba ca diiwaanu Thiès ak Mbour Le Soleil yéene kaay na ko waaye jam ñaajo AIBD fi leeg 17 mois mu pare Macky na leen bu gën a gaaw sax moom a gënal de ndax ci laas yéene kaay moom Macky Sall ma ngay xam le ne jamonoy jëf ay réalisation man ci loolu laa nekk ndax wax fay ànd ak jëf Le Wéré journal na ko waaye wax ak yow jot na de Macky ñaat téeméeri milliards ak ñeent nga di ko dugal foo xam ne presque njëriñ la bëriwut Direct News na ko man faa xamut xanaa lan lay daw bay daanu moom Macky Sall yow seetal fi mu toll nii ay daloo ay lancement ay pexe daal ci la ne Macky lii muy def ni yëpp fa bëgg sénégalais yi kontaan ci moom wala ñu woteel ko su yóbboo mu noppal boppam de ndax élection locale yii sénégalais yi wan ko na ko ñun fa doyal ci yow signal bu fort Ibrahima Sène bu PIT mel ni ku naan ko moom Macky Sall sax fa war noppal boppam ndax 2024 moom mënta muusa ka waane wala mu def ay pexe ba samp findinam nekk candidat loolu moom mënta nekk jaru sax mu di ko jéem wala mu koy xalaat kàddoom yaa fulla ak fayda am na lu sénégalais gën a soxla ci loolu la waroon a jublu te yéen sénégalais faa bëgg ngeen xam ne jamono ji Macky Sall leb na ci seen tur ay milliards yu du xaddu jeex moo nekk ci ndoddu sénégalais yi te ëllëg même bu fi Macky jógee ñun askan ñoo koy fay xaalis boobu te su fekkoon sax bu ko lebee dugal ko xam fulla ak fayda wala li sénégalais soxla ñu ne waaw waaye ay teer ak si jamono jooju mbay mi baykat yaa ngi ci jafe-jafe ñu ne déetewaay ay tonu Sénégal buñ ci waxu du baax de dund lu nit lekk moo fi nar a ñàkk te ci kanam ceeb suukar fay manqué l'observateur na ko faala ci yokkal ngir wax sénégalais yi ne gisagu leen dara de li ci kanam moo nar a gën a métti ci ay jafe-jafe yàggatu dara weer yi rek même transport bi dem ak dikk bi fa nar a yokk matériel yi ñuy tabaxee fa nar a yokk <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na Ousmane Sonko fañ ko war a bàyyi jox ko passeport am bi mu doxi ay soxlaam bitim réew du samay kàddu Alioune Tine bi fi jitewoon rado moo ko wax ci seetal fa xam le ne jot na ñu àttee Ousmane Sonko ngir mu libre naka a tamit Barthélemy Diaz mbiru Ndiaga Diouf bi politique moo ci xam fañ ko war a bàyyi nag ndax yenn Afrique caaxaan-caaxaan la léeg si ko yéen e kaay na ko fitna ji fi amoon ci mbiru Ousmane Sonko yi ak Adji Sarr xam na ci ab élève bu waroon a def baccalauréat ndeysaan fa ñoo daggoon loxo bi baayam xamul sax lu mu ko jëndalee protest awa niram yàqu nii rek loolu rek war naa tax ñu àttee ci ki war a atte mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko yi yaw seetal nee na xattekat bi dossier yi war a atte bari na de tuuti kono na mu mat juróom benn téeméer de waaye fa yaakaar ne xattekat bi fa bëgg a xattee mbiru Bougazelli yi su paree teg ci Adji Sarr Ousmane Sonko Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène leer la leer ba mel ni jant tusubaar mooy ne yeewi askan wi jóg nañ taxaw ña ngay waajal bu baax wote député yi ginnaaw bu benn bokk yaakaar jógee wax su populi moo ñu ko xamal waaye yeewi nag bëgg ndaw yu bëri bindu mën a wote ña woteel benn yaakaar ca Géejawaay te bokk ci conseil yu waa yeew yi nga xam ne fa war waa yeew yi source ay yéen kaay ne am naa ci ay firnde yu leer nañ info yéen kaay na ko du kenn ku dul Malick Dieng moom conseil la Ablaye Wade la Ablaye Wade na ko na woteel Ahmed Aïdara moom mu dem woteel Aliou Sall ba tax waa PDS ya ña sàkku ñu kajj ko dàq ca biti ndax faalewul Wade te warkat la bés bi yéen kaay moom di ñu xamal ne ambassadeur bu Ukraine fii Sénégal na ne mësta recruter ay Sénégalais ngir ñu dem guerre ca Ukraine li xam nag moo ko sàkku na ko saa waaji fa nga ngaa deltu ginnaaw de waaye nag baax na laneen lu baax te rafet mooy doomu Sénégal kilifa diine gu mag bu ñuy wax Baye ñees moom lañ doon màggal ju dóom ca réewum Nigéria ren na gàmmu Nigéria ga janfara ak kanu hee fa ngay foog ne nit ñi fañ doon taw ci asamaan si xaalab nit mbooloo mu bari lu kenn mës gis foo ko natt rek weesu na ko bëri waay ba kenn mënu la koo nettali boo seetaanee vidéo yi ci Facebook bi internet bi fa ngay foog ne lii ay montage la du dëgg stade bu fees ba fa ñuy footballee fees ña duggut nekk ca biti ñoo ñuy rëj ca Nigéria ay million million doomu aadama ñoo dajaloo ca stade yaak xàll ba lépp ngir gis kalifa général bu Medina Baye ba fa demoon président Nigéria sax ak gouverneur ba ñoo organiser gàmmu ga sant gërëm Baye Niass bi tax awsa yi ak yoro baay juboo faydu bi diina lislaam tasaaroo fa taaliba Baye Niass yi Nigéria hëpp nañ 60 millions bi yéen a kaay moom di ñu xamal ne lu jege fukki junne ñaar ci ay soxna fa ñu xam jàngoro cancer ween xat bu yàlla sàkk loolu baaxut laneen lu baaxut mooy ay menace de mort fañ lay rey moom la ñuy tëkku kaay moom ñu ko xamal la mu ñu xamal moom libération mooy këppu kees bu am ca elew sandarma ya yaaw seetal président ba ak trésorier ba këpp nañ kees ga de weer wu jot kenn ku nekk fa daan teg ñaari junne ñaar téeméer 2019 ba léegi ñu dajale lépp sàcc ko dem ak moom <laughs> waa ma ne xalalu mbooloo bu ko fooyee moo moo ko dénkaane la xam nga ne tas ngeen yaakaar de waaye sàcc ndëd nag yomb na foo ko tëggee nag mooy li jafe